wajal kalaami rashida wa mursida wa fikratin nawwir wa qalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu waxtu di leen siyaar di jiital si nuyoo bi saaxib al fadila maulana cheikh mouhamadin al muntaqa xafisahullah wa raa waaye di ko nuyu di ñaan borom bi tabaaraka wa yàggal ko fi lool te dool di ko ak wér waaye di nuyu itam mboolem kilifay diine yi fu ñu mën a nekk di ñaan borom bi tabaaraka wa liggéey bi ñu leen dénk borom bi defal leen ci lu kawe njort tañ ànd ko ak njaboot gi waaye mbokk yi tey suñu émission yaru ak yare ci ni ngeen ko xame woon nag euh, alxames ji njëkk ci weer wi moom lañ ko daa doxal tey jii nag ñu dugg ci weeru safar bëgg a nekk loo xam dafay nekk spécial safar incha allah ñu fas yéene di si ànd ak yéen commencement ci premier safar incha allah ba ci fukki fan yi ak juróom si waxtu yoo xam ne yu ràññeeku lay doon incha allah tey jii nag ñu dalal sëñ Maxtaar Kebe mi nga xam ne moom lañ daa àndal. ci émission bi saa su te mbokk yi xam ko mu daal liggéey liggéey bu rafet tey jii sëñ Maxtaar ginnaaw boo nuyoo ak mbokk yi dañuy dugg rek xam naa directement ci tanzim lan mooy sabab bi sababu màggal lan mooy sabab bi ak lan lañ ci mën a jëlee comme ay bind ak lan lañ ci mën a waaroo ba tax liggéey boobu nga xam ni ko baax ki Mawlana si Ahmad al Xadim bàyyil nañu ko mu mën a wéy di dem mën a am istimraariya ndax nekku ni dañuy gu màgg rek yam sa waaye lan lañ si mën a jàng bi maanaam ay ay duruus ak ay ibar ginnaaw boo nuyoo Serigne Makhtar Kébé mu Cheikh Salim Mbacké asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi fu waaye mën a nekk ñu ngi lay nuyu di la siyaare di tàmbalee nuyoo beeg siyaare bi ci sunu xarit sëriñ Mbacké Sourang mi ñu seqal jataay bi te ñu yàgg koo seq ak sëriñ Moustapha Sarr mii nga xam ne wax ji waxtu nekk ci loxoom lay jaar ba mën a jàll ci bokk yi waaye beral am nuyoo saaxibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko siyaare bu baax di ko ñaanal yàgg ak wér di ko ñaanal njabootuk sëriñ Tuubaa gépp ak taalibey sëriñ bi ak fa jullit mën a nekk ci àdduna beral am nuyoo ko siyaare waa C3S ca sëriñ sekk mën na ca bopp ba ak sëriñ Fàllu ak sëriñ Daam ñoom ñëpp ak ñi ñu seqal liggéey bi ci biir capital bi ak yeneen banqaas yi sëriñ Mbàkke ñu nekk ci benn munaasaba diiniya muy xew-xewu diine boo xam ne defe naa ne kenn dootu ko laajte ci àdduna kenn du mm. wax senegal ba Afrique waaye defe naa àdduna daj na ko la ko waral nag mooy jëmm ju baax ju tedd joo xam ne daa ñëw ci waxtu woo xam ne dañ koo soxla mm-hmm. diine soxla ko ak nite soxla ko euh, bi mu ñëwee nag indaale diine ba mu doy sëkk ba noppi nag teg nit ñi ci yoon woo xam ne buñ ca jaaree insha allahu rabbi ëllëg danañ doon ay tànneef ka def loolee nag di cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu wa ardaahu kon tey buñ demee ba ci safar boo ko waxee ci sénégal mujj na nekk fi mufradul alam hmm. boo nee safar rek ñëpp xam nañ luy safar léegi ni mhm. nga xam ne boo nee tabaski ci àdduna ñëpp daañu xam tabaski bu nee korité ci àdduna ñëpp daañu xam korité mhm. fi ne safar am na mawqi boobu placement boobu mhm. ci eh, suñu réew mi safar nag sax daa mel day tegtale wéll mooy kër gu kenn nekkut ndekete safar mooy premier weer wi nga xam ne ci la ñuy dem ci jihaad yi ñu tuddee ko safara ad diyaaru maanaam kër yi ne fa woon ñëpp dem nañ xeexi mooy wéll. mooy wéll wéll mooy fu dara newut. safar naam. tuddee nañ ko safar ngir génn góor ñi dem mu muharram daa araamoon a geer ñu tegoon ngànnaay safar ci la ñuy jël ngànnaay. Hmm. rabiul awal moom la ñu tuddee loolu bu njëkk bi. rabiu thani mooy loolu lim ñaareel bi muy léegi li li tooy a ngi tàmbalee woo gerte gu tooy dootu te am ak mboq mu tooy ak yooyu hmm. jumaadal ula mooy déegi tàmbal nañoo ñiis ñiis bu njëkk jumaadal thani mooy ñiisu ñaareel bi bu ko géej xas déegi xasee ba eh, ñiis nag dootu am lu mu naan. noonu la nga koy toppee ba mu dellusiwaat ca déwén sa. di rajab rajab rajab mooy delloo nañ mba jaasiye ca mbar ya mhm. ndax lan tàmbali nañoo bañ a geeri rajab alfard ah. moom kese mooy wenn wenn weer wu ñu dul geer maanaam te ba mu beru. al ashurul xurum daal ñeenti weer yi si la. ashurul xurum yi moo tax ñu tudd rajabul fard dafa dafa taw lowut ak ñett yële moo tax ñu tudd ko alfard dafa beru. Hmm. rajab Shaaban hmm. Chaban tudd nañ ko Chaban li tashaxu binnaasi fi talabil maa yi. Ah, day fekk ndox amut nit ñi kenn ku nekk di wéy di rootaan yi. Hmm. di tasaaroo ñiy jaar di rootaan yi kon rajab Chaban muy tàngoor wi nga xam ne mooy am ci saison boobu. Hmm. donte ci bitti la. yonent bi ne Ramadan yaram bu bu bu wooree tàng gi muy tàng day lakk bàkkaar ya. Ramadan waaw muy Ramadan un ngi def ab gël. ci olof. Shawwal mooy léegi. seel yi ñu dese woon ci lañ koy weer mm. ci korite gi ci kore gi moo maanaam euh, moo ci des sawaal nga de doo xeex da mooy waxtu dañu toog bañ a geeri dool xija mooy waññi aji muharram mooy wa nga xam ne daa araamoon na nga xam ne kon sëriñ mooy weeri olof yi nag si ki ko xamul daal exact ci ki ko muharram mooy fukki fukki fukki weer yi ak ñaar ak ñaar na iddata shuhuri inda allah na ashara shahran kitaabillah kon day mel ne kon safar daa tombeek dem leen guerre yi sëriñ bi itam génn ci dem guerre yi. dem waaw foofu rek laa bëgg ñu ñu ñu ñu bàyyi ko xel ok su ko defee sëriñ bi nañ xam ne Mbàkke Kajoor la tàmbalee ay mbiram jot faa am lim bu xaw a takku ñëw ak ñoom Mbàkke Bawal gi nga xam ne fa la gënee àdduna mm-hmm. booy dugg Mbàkke boo weesoo seen lycée bi à gauche ci raay bi mm-hmm. foofu la sëriñ Tuubaa gënee àdduna mm-hmm. sax na fa ab diir nag ginnaaw bu fa dellu si waatee jóge Mbàkke Kajoor waaye ginnaaw bi Cheikh Ibra Fall radiyallahu anhu moo ñëw ne ko damaa liggéeyal woon yàlla ci àll bi muy fu suufu Daaru Salaam soosu ne ko Mbàkke gis naa suuf su lewet soo xam ne bu yàlla dogalee nga dem fa dey lu dikkati dana taxaw maanaam njaboot gi danañ toog ndax danaan def lu dikk rek dem. allah bokk na ci taalibeeg Cheikh Ibra keroog ba ko Sëriñ Tuubaa ne nañ dem nga won ma ko da ko ne du ma jiitu ngay topp ci man. Hmm. ni ñuy def kay koy mooy damay jiitu kon ceer na topp ci man nga topp ci ceer na waaye xalaatuma laa jiitu Mbàkke biñ jiitlee bi ci suufu Daaru Salaam te mu ne ko fii la foofee la Cheikh Moustapha gane àdduna kon moom itam ñu tekki ay weer yu néew mu dem Daarul Mannaan ñeen ko Daarul Marnaan ci olof Sëriñ Fallu gane fa àdduna ci Kazu Rajab mu daal di jàll nag sanc Tuubaa googi Tuubaa ba mu koy sanc diggante Daarul Quddus Daarul Minan ak Daarul Rahmaan Daarul Rahmaan mooy kër Sëriñ Suwaybu bu googu tey hmm. bi sëriñ bi jógee waatee fii ma sax na daaru rahmaan di kër sëriñ sony bu dalal fa Cheikh Moustapha ak sëñ Fallou ak ab mhm. bañ ak si yaasin lépp sëñ baa ngi woon mhm. ba ko natt bi di dikkal nag ba mu fay jógee yóbbaale na leen sax Mbàkke Baari waaye dafa dem xool situation ba nam bindoo mu daal leen joxaat maam Thierno mu yët leen sëñ Daam Lo Abdourahmane ca daaru alimal xabir di daam mhm. foofee sëriñ bi nekk nag di Mbàkke Baari googu nga xam ne ca la fas yéenee jóge dem liggéey diir bi fi sëriñ bi nekk 600 personnes amoon na ko ci ay góor yàlla yoo xam ne ñoom dañuy takk seen ndigg sikkar guddi sikkar bëccëg foo ne fekk ñuy liggéey nekk ay majaazib ay ay daanukat ñii di yuuxu dugg àll bi ñii di naan ndox mu tàng ñii di dakk sa ci ay xal ba mu fay. nga xam daal bu fekkoon ko soxla mbooloo rek la mën naa yem kon doyoon na foofu. bi ki des ba mu fa nekkee itam foo waaye ne ci réew mi am nga xàmmi ko koy li ñuy wax fétal. am nga yoon wa mën a topp ba ñëw Mbàkke Baari ak fu mën a doon kon day mel ne bu fekkonte ne nguur ñu bëgg mu taxaw la mhm. taxaw na mhm. yi nag lépp sëriñ bi li mu koy am lépp am na leneen lum mu xalaatoon mhm. daana wax naan lim li ko gënal ci àdduna mooy dem ci ay wéet ay montagnes yu wéet ak xur yu wéet yi dafa jaamu yàlla nga xam ne bu ma saan a julli der bi dañ koy xëccoo ba àgg ci bëgg cee xeex sëriñ bi ne leen sama der bii de danaa ko mas a tegi foo xam ne bu soobee yàlla du ngeen ko xëccoo mhm. kon day mel ne kon yoonu géej gi dem gi waaw mi ngi koy mi ngi koy junj mhm. lu ca xew lépp nag gudd gi maanaam vingt cinq minutes mënuñu koo may mhm. waaye foofee bam waxantee ak borom ndar ci ay leetar ak ndaw lu mu yónni muy maam Thierno Ibra Faty ak sëñ Demba Kebe lépp taxul seen diggante neex ndax ki nar a yàq du defar mukk te ki defaroot du nangu kenn yàq ko lii moo waral kon fajarus gaaw la sëriñ bi yebal maam Thierno muy ñëw ca fajar ba mu koy nuyu ca bunt jàkk ja ko sëñ bi ne xam naa lépp ne ko mbir mi àgg na ci tilim tilimaay boo xam ne saabu bu rëy rëy moo ko mën a fóot Thierno bàyyil ma dem te nga téye njaboot gi duggaatul ca kër ga donte am na ay yu baree bëri yu ci xew waaye fekk na njëlbéen gi lépp tam comme ni nga xamee projet maanaam teg na yi mu war a teg yëpp ñi war a jàng jàngal na leen yéen leen jëmbat na si ñoom tawxiid ba kenn mënatu leen a soppi ba am ba am na baas bu dëgër daal ngir bu tukkee bàyyi leen fii itam dara du yàqu. loolu sax bu ñu demee ba ci biir sëriñ euh, Mbàkke barakallahu fiik mhm. dana gën a leer. Mhm. ndax sëñ bi daal mel dafa ji bay. Mhm. jaay. ku ne xam ne dafa ngay jiyee ak fa ngay bayee nag ak fa ngay jaayee du benn. fa jaaye jaayee ji nag fa la récupéré ak payam. danaa ci ñëw léegi muy benn tomb bu am solo. kon war na aw fasam. tàggatoog ay tut tànkam sëñ Fallou sax mi ngi koy nettali ci ñiy déglu mu ne waa ji keroog ba suñ bàyyi di dem waay maag sama mag yi dañ ne bis bis bis def noonu gone def sëñ bi daal ne saa baaraam ba ñu xool ñu seen jumaa ja ca kaw asamaan sa mu ne lee rek ma tax di dem ñu daal di noppi xoolal ma sëñ bi sëñ bi dem na ba ñëw ba nekkaat njaarim ñu door a door jumaay Tuubaa te ba muy dem la wane jumaay Tuubaa ci loxol maanaam baaraamam bii ci wax sëñ Fallou Mbacke kon kooku fa mu jëm xam na ko ndax jumaa jooju lu tax mu joxoñ ko ñoom ñu séen ko te jumaa ji tàmbaleeguñ ko te natt bi sax tàmbaleeguñ waaw suñu borom mooy Karim waaw kay maam maam jubóol ak moom rek <laughs> ah, jubóol ak moom rek amul ay amul distance jeex na amul distance yàlla moom amul distance amul makkaan kay maanaam yow jubóol ak moom jubóol ak moom rek nee na ba mu waree façon woon ak moom Cheikhul Khadim foofu am na fu ñu war a taxaw seetlu kilifa gu toll ne moom juróom benn téeméeri nit yaakaar ko te du yaakaar yi parti politique yi nga xam ne dangay ngay def tey bu ëllëgee boo ci amul intérêt bàyyi. Mhm. bakkan lañ ko joxoon woo xam ne comme ci ne kaay dee moom yaay njëkk dee sa morom. Mhm. juróom benn téeméer yooyu bu leen groupé woon yóbbu comme njëkk a dajal nooy mel. da mhm. na nga def attention jeewal cent vingt personnes fa ñëwoon. ci loo xam ne maanaam moom la borom ndar yebaloon. cent vingt personnes yoo xam ne ay tàppet lañ ay ragal lañ. bu ñu demee ba dajeeg ba dajeeg 600 personnes yoo xam ne moom dee leen gën a dund sëñ Mbàkke seen tawhid dëgër na seen taalibe mat na fal yaatabir man yaatabir mm-hmm. benn ngo mm-hmm. kon sëñ bi du du sokki mukk violence mm-hmm. fa la leen daal di bàyyi war aw fasam kon nag sëriñ bi tey fii ñuy waxtaane bàyyi na ay moomeelam bàyyi na ak njabootam bàyyi na ay taalubeem bàyyi na lépp lim amaat ci àdduna tanara ànd ak moom mooy aw fas ak ñaari Ah, waaw xusuur yi xalat waaw ba tax xusuur yi foofu lay jëm mm-hmm. kon bàyyi na adduna ndax adduna moom dañ ne ay moomeel la mbaa ay soxna mbaa ay xarit moom nag bàyyi na ay taalibi 600 personnes ak léppam ba ci doomam yu ndaw yi sax mm-hmm. bàyyi na leen bis bis yi ci waxin mm-hmm. kon loolu la wax at taxalli min ad na wicc taxliya kay am na foofu taxliya ba mu ko defee nag ba façonee ñaadam ñaadam bi mu daataan génn néegi mbàkke baari suñ sun borom yër na xolam xam ne toq ak àdduna desatu ci sëñ bi destination boo jël boo xam ne yow xamoo foo jëm te li nga bàyyi xamoo kañ nga koy gis ndax dara ci àddunaa nga caate ba mu tàqali koog waa suuf nag suñu borom daal di koy correspondé ak waa kaw loolu moo taxal waa ahlu badar mën a ñëw hmm. maam daal maam réseau bi dagg na léegi yaa ngi si beneen yaa ngi si beneen aalam waaw moo tax bi mu daataan génn néegi Alioune Badara ñëpp présenté wu nañ. day am connexion daal. connexion parce que léegi li mu bàyyi dara la lu sew la yu yu yu sew bu il faut mu xool sa xol. maanaam ah, ne ko noo ngi nii yow kat léegi jëndeetoo noo kenn moo tax itam dootuñu la yemalee kenn. waaw avant muy agsi jeewal moog Alioune Badara ñoo fa ànd agsi. moo tax ba mu agsee moo xifu jeewal maanaam position bi dafa changé ndax bi mu gisee ñi ko doon jël si di cent vingt personnes ahlu badar di lim bu dul jeex benn naar naa laaj na ko sëriñ bi ne ko ahlu badar ñi nga àndaloon ñu mu doon mën a ko malaaka ya mu ne ko kuy seen njën mu ne eh, sallallahu alayhi wa sallam ah, menn malaaka lañ ne ci mën naa roof ci benn bolde boo xam ne ci loxol càmm eh, baaraamu sànqaliñam bii la koy roof su ko dóoree waa adduna ñëpp maase far na wërënt waaw léegi la la ñëwoon ahlu badar ñëpp jibril ak ñëpp àndandoo ñëw est-ce que bu jàkkaarloog cent vingt personnes yoo xam ne ay ah, tubaab yu ñàkk fayda ñoo xam ne sëñ bi lii tax nag ba sëñ bi agsee nag mel ñoom na ngay dëkk si bi ndax dañoo ñëwoon jàkkaarloog moom fi saasi ne ko nañ dem mu leen demuma fii laay fanaan foofu mën nga see déggee ni nit ki bu jubóog yàlla du du gaaw a mer maam day mën a jéggale waaw ñaare koo gis muy mu def mooy action bu ñëwee maam bu bu dara xewee nga def action li si ëpp diggante ak borom bu dëgër. tey tey bu ñu bu ñu amoon 40 minutes. gis nga mellentaan bi màtt ci sa tànk bii daw wuti ci tànk bële boo ko laajoon. day defe ne am na fu mu jaar ba daw. te yow sa benn baaraam bi boo ko tiimale woon naan ak guyam a tiim. ki fii teg yàlla ba yàlla wan ko ne ko adduna aw me ay mellentaan yuy dox la. ku ko fiy safati sëñ bi sëñ sëñ Mbàkke waaye nag ku sore yàlla nag adduna ay ñay yu dox nga fiy gis mais boo demee ci yàlla ay mellentaan yu dox ngay gis moo tax sëñ Tuubaa dafa tiima nit ñëpp mel ne ay mellentaan wi matt yi daw ak watoo ki wetam yëpp a yem benn safu ko ci. moo tax moo tax weddi wóorul de. i kenn du ko def. am nit ku xam dara du weddi. Ah, kuñ defar parce que inna la ala bu la wanee boppam. notel aaya boobu foofu li gën a yéeme mooy yonte bi sa sa laa tax sa dara. ok ah, imsi laa tax sa fi laa ñëw. Ah. muharram nañ bëggoon mu dem. Hmm. waajtaay wax mën leen noppeeguma mënuguma dem moo waraloon leetar yu bari ya hmm. ba ci sax ñaari officier lañ ko yebal ci bi bi trois jour desee yoo xam ne ñoom dañoo séwilu ñëw ci biir kër gi di ko wan maanaam bëgg xam lu sañ bi nekkee di def espionnage sëñ bi ne leen dama amagul sama ndigalal borom. Hmm, dem ma dem ki hmm. keroog ba ko yent bi ne nag. summa lahum summa lahu xaalam si laa tax taxsal xarar aw laa taxsal darar moo tax ba muy dem nag dara safatu ko hmm, am na ndigal daal am na ndigal léegi nag foofu ñu taxaw bala ñoo egg jeewal xarajtu yowma sabti thamini achar xoolal sëñ Tuubaa date date thamini achar date hmm. lu am solo la hmm, dix-huit naam la jël bu ëllëgee gis bi lu mu yàgg-yàgg bayit bi saa yoo ko mokkale rek arminaat bi ñëwaat calendrier bi maam taarix taarix laysa bi insaanin wala bi aaqili man lam yaani taarix fi sadri kon taarix waaw na dix li xidmatil muxtaari al hmm. lu ko tax dem liggéey la yonent bi mm-hmm. bu ko defutoon tey mën nga ne sëñ bi lu ne ko yóbbu mm-hmm. politiciens yi mën nañ koo soppee nu ne mm-hmm. mais dafa indi àlla li xidmatil muxtaari mu andi ko taxdid fii chahri safar bu ëllëgatee bu ko teg muharram léegi nag lan moo tax muy màggal bisub dem te màggalul bisub delsi te ñu ëpp nag day bis bi ñu amee ndam la ñuy kii moom nag moom dane bis bi muy wuti ndam ñàkkoon ndam day niroog ñaari digg jëm yi dajee ci lexam bi mat moo tax kon bis boobu la gën a fonk ci bis bi mu muccee ba ba am ndam ndax wuti gi moo mën woon a ñàkk moo tax mu def taarix ba def màggal ga bisub dem ba te def ko muy bisub dikk ba yegg na jeewal ñam fa fekk lañuy wax juboo wuñ waaye fa saasa nag dañoo mujj ñoom ñu wàcc force boobu nga xam ne ñoo ñëwoon di ko jël si ñoo mujj d' accord sëñ bi ne ko kon dañuy fanaan kon léegi d' accord nañ ci fanaan gi fekk sëñ boo neen la moom démb moom fii laay fanaan fanaanee màggal guddi ga dégg naa sax ñu ne inna wali yàlla lasi nasal kitaab wala saalihin ayasaminillahu inda jawali waaw foofee ba mu xëyee ba war a dem du gudd liñ fi jël rek mooy mooy yi munta ñàkk sëñ bi ab ajoor mooy ku dëkke àll ab badawi ay tubaab mooy ñoo xam ne liñ baaxoo wax ak ñoom mooy xitaab naar yi bu ñu wax ñu dañ leen di gëdd gërbal sëriñ bi di kenn koo xam ne andut ak kenn ku ko mën a défendre ci ñoom tiitut rab-rabiwut defut dara waaye li leen di wax moom benn baat la te bu ko waxee woon du ci jóg muy fii laay fanaan ñu dem dem dikk ne ko d'accord nañ ci fanaan bi keneen comme doonoon tey bu la tubaab bi dee bar luñ la wax ngay def waaye ñëw doo leen wax luñ def Hmm. parce que fa haysuma taxaf ilaahaka al ahad yaxaf yaxafka min xawfika yàlla boo ko ragalee lépp ragal la ndax tubaab bi ba mu ñàngalee ba mu desiwaat da ko ne waa d'accord hmm, waaw ca suba sa bañ xëyee kon ba baaxoon na ci sëriñ bi mu xaar tubaab bi ba xam nañu def waaye sëriñ bi daa xëy xëy rek takk rek wuti Louga hmm. ñu ne luy lii ñu ne ay topp leen ca ñu daw topp ca aw fasam gën a gaaw seeni fas ba mujj tubaab yi naan ko sëriñ bi tee ngaa def ndànk mu ne leen mosumaa dégg nag fenn kooku lan mantëq la parce que moom xanaa daa am lu koy wommat maam yaqu dina alquran wa wa an waaw sëñ Moussa ganaan Jibril moo yoroon xay sumba uh, moo moo gogam ba kon buñ ko naan defal ndànk mu leen mosumaa dégg ku ñu woo kaka woo hmm. hmm. jiitalu ko lu dul topp ci ginnaawam di yàlla yàlla kon xoolal xoolal ma gi gër mi moom wàññi na leen foofu wàññi xafdul maxnawiyat xafdul ah, maxnawiyat mënu mm-hmm. ta ñàkk bañ defee ne dañuy continuer dem itam ba àgg kokki fa fa la kendal la nag monsieur seen na jësub ci pénc ñu ne luy luy mën a leen fii laay ne mm-hmm. ndekete waa wa waa kër way way juru sëñ Basiiru fa la dëkk ñu sant Jóob mu laa defee laaj àlloo tàmbali naw nu asmaa ahli badri mm-hmm. sëñ bi ñoo àndal bërki démb wala biig ngeen fanaan est-ce que su ma leen di bind war na ma war na maa mën a am problème mu <laughs> liste bi te man ñoo nag ñuy ñuy trois cent treize nag personne ah mu tàmbali ko fa nag ci ëlloo daal di daal di fay daal di fay jógee ñëw Louga keroog bi muy agsi bi jëm bi muy jëm si Louga may jege Louga ñenn nag ñi nga xam ne ñoo ko dajee woon ak moom ci yoon ci topp ko kenn na ko ci tasallax yaa cheikh hmm. bu fekkee jël nga sa arme fa arme wu la waajal waaw waajalal sa ngànnaay ndax yaa ngi jege noonu yi sëñ bi ne ko yàlla du umpale du fàddu laa yaxibu laa yaxibu wala yax laa yajis wala yaxibu laa yajis lottu te du fàddu mu ne ko nag dégg ma li nga wax sëñ bi ne ko loolu ma la wax mooy li am ci man hmm. mu ne ko dégg ma li nga wax maanaam waxin woowu daal man damaa jàpp ne boo nee jëlal sa arme da nga jël sa arme di tiire hmm. waaye doo jël di ma waxaat ay ay ay aayaa ki ay ay ay xaadisa ki ay ay ay wax sëñ bi ne ko lii ma wax mooy ne mooy li na ci man hmm. ba ñuy egsi Louga Louga la taxoon mu jaari fa borom Louga mooy gorob borom Ndar ci gàttal. waaw ah, moom kay day kii waaw ci gàttal. kon dem na foofa Louga yenn fa takkusaan la fa jóge tàqali ko at ak fasam waag bagage ba dem ndar ne fa cundum ci diggante ay noonam ak xitaab ba discours ba amoon seen diggante mook borom ndar bañ fa jógee lañ ko téye nañ ko fa 40 jours yu manqué benn 39 jours mhm. daal di koy transféré mu dem Dakar lan moo tax ñu yóbbu ko Dakar ñoom bi ñu seetee seet seet seet amuñ ci señ bi ay résultats yu valable. ñu transféré ko ba borom ndakaaru dikkee di wax ak moom dana leen kii ma gis nii lislaamam ji moo ko gënal bakkanam bi. ñu ne ko léegi kon fil man fa nañ ko dàq. Ah, dàq boobu na ay xafdul maanawiyaat ndax xëy nañ dugal ko ci ab looco looco ba yóbbu ko ci digg géej ga géej ga yenn fa moom ca ci biir gaal ga te demaguñu fenn. nga xam ci biir gaal gi la xamee mu jëm. fi mu dugal ci biir gaal gi xamagu ko. tekk ki bagaasam ba mu départ. Mm-hmm. ci biir dem nga nag la ko ab saalum saalum ne ko yow yow lañ namm ci yow euh, gabon nga neen fa laa dégg turu gabon doora xam ne man fa laa jëm allamani rahmaanu fi safina waaye nag bi anna ni xadimatil xam naa ni moom li naan li du si nag yi moom xajul si sillee tënkal ñu si rek maam lox na si rek dem na ci géej ga ak fu mën a jaar ak nattu ya ñëpp dégg nañ ko la am solo mooy ba muy dem ànd ak kenn hmm. ndimbalal kenn ku mu sàkkul boppam it fekk ko fa hmm. yàlla yonent bi ahlu badar noonu ma ko daan waxee. Hmm. amul kenn ku ma keneen ku ne sama daraa ngi ci. Hmm. amut. bu loolu xam nga ko mel noonu sax bu amoon tey man naa mu am beneen taxawaay si nit ñi. musharaka lay ba ah, mu demee ba dellu si keroog la ma waxoon daa leer nañ su ma delluwaatee ci saa nit ña saa dellu ne sunu texe nun ñëpp. genre rujuwaan yi. ilaa qawmi saadatana waltaqina yawma jam'il xalqi niiraan. macha allah xoolal ma kii. Hmm. duggaale na ñëpp géew te kenn joxu ko lu mu yóbbaale ci géew ba. macha allah duggaale na ñëpp géew. te kenn joxu ko mu yóbbal mhm. ba mu demaatee ba dikk fa mu jaaroon dem fa la jaaraat. Mhm. kenn ku ne mu mel ne dafaa taxaw ne la ñëw naa ndara mhm. sa euh, sa annaak foo déggoon ne jaar na fa ba muy dem rek tegaat na fa tànkab bi. ne leen ko bëre woon. coupe baa ngi nii jël naa ndam. waaw macha allah kon moo dem ci ak wéet dem indi sëriñ bi nga xam ne si la ñëpp xaj nañ si. te du jeex lii kun bi kun wajal masiriyasa jawfal fara lil wara misal maharin sababu xaybati ya an allaha arada an anala minhu lja wa an akuna xaadiman fi an yakuna xaadiman fi dawla waaw bu dul woon ak dem gi walaf nasraanu takun billahi ñëpp lim niiraanu mbokk yi kon loolu mooy li xam ni yaru ak yare andi na leen ko ci waxtaan yi nga xam baaxoo nañ di ko jàllale ci safar li si gën a am solo rek sëñ Maxtaar wax na ko mooy ñu dund sëriñ bi bu baax foofu na mën nga fay jàng tawxiid bu dëgër wàkkil lu ci yàlla gu mat sëkk waaye tam wóolu ko nga xam ne boo xasee wóolu yàlla te yaakaar ko amatut luy rëy si sa kanam amatut looy ragal parce que yaqiin yàlla yaqiinu an ushrika bi fa kullu mushrikin lam yantabi kon mbokk yi foofu la ñuy teg suñu baaraam di xaaraat waxtaan incha allah woo xam dañu koy ànd ak yéen ci biir saru safar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani rahim فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم